donc dof bi ngeen di gis nii di wax dafa perte tax da ngeen leex li ngeen may waxal yépp dafa fekk rek mu nekk ci yéen waaw li nga xam ne man duma leen ko wax yéen parce que yàlla ko waxal seen bopp mais dafa fekk rek mu nekk ci yéen ndax fii lu fi waaye wax rek xamal ne ne dafa nekk ci yow la nekk ci yow nag la nga toq nàmpatal ko sa bopp moom rek ngay ñëw tegal ko doomu aadama xam nga man sama xeex laa jël xeex ko yéen fekkeewu leen ko lu ma dundu ak lu ma dunduwul donc lépp loo xam ne doomu aadama ma koy jël di koy teg sama kaw xamal ne ne man faat si benn sax dama lu dul baal ba ci kanamu yàlla nee naa la damay xaar bisu penc ndax bisu penc dafa am yàlla mooy atte waaye na nga xam ne yow moomu di koy wax faat si moo la gën ci ndey gën la ci baay ndax musul taxaw ba ne la ee eh, donc nag tànk man defaguma loolu rek xamal ne lépp loo fi wax suba ba ngoon muy dof bi yow wéroo dangaa perte caga nga doomeraam nga lu leen neex wax leen waaye na ngeen xam ne ne fat si ah bu leen romboon tey ngeen nekk ci naqar moom mooy bàyyi léppam ñëw wallu leen ndax foofu laa leen gënee duma xool la nga ma wax la nga ma waxul parce que man ma leen wax dëgg yàlla te man sama bàmmeel laay wax de man xaw ma leen donc saaga yi ngeen may saaga ak wax yi ngeen di wax jël leen ko ngeen boxoñaat ko téyal ko seen bopp parce que man duma leen ko delloo mukk man maa mag loolu xaar leen rek ba dund situation ba ma dund ngeen am courage def li ma def man si Malick tant que defu leen ko noppi moo leen war te ñaanalu ma leen yàlla sax ngeen dund ko parce que yéenewu ma leen ko est-ce que c'est clair maintenant foofu nag mooy différence bi entre vous et moi moo tax man ñii di wax duma leen comprendre parce que damay wax ne yéen en tant que doomu aadama ak intelligence bi yàlla may doomu aadama suufal ngeen seen bopp ba yéen xamatu leen ah nit kuy wax dëgg wax dëgg waaye yaakaar naa ku teg preuve war ngeen am au moins que le minimum le minimum de sensibilisation ne ko mast su ma leen waxul sax boo mënul sax wax maste nga noppi waaye nekk fi di wax nit ki caga nga dof nga amoo classe danga perte liax la yéen man maa leen gën ci ndey gën leen ci bàyyi te wallahi azim maa leen gën ndey ci gën leen ci bàyyi xam nga lu ko waral parce que jusqu'à présent li ngeen may waxal yépp man waxuma leen ko du ci kenn ci yéen koo xam ne topp naa ko am na ñoo xam ne sax ci seen commentaire ya ñu def dama leen applaudir di leen di ree pour wan leen ne man man dama leen mag quoi sama gars yi dama leen mag ci maayin xam nga ko loolu moo tax li ngeen di wax dara safuma ci dara safuma ci ndax man damaa jël samay preuve teg ko ku am nopp am bët bu baax di nga gis di nga dégg te yéen laa ko defal de ndax moom loolu safu ko ndax bu ko safoon yaakaar naa ne daaw mu def réaction musul def réaction parce que ça se voit ne peut-être sax moom loolu la bëgg ñu may ko buzz ah oui ñuy tudd turam chaque fois di koy fàttaliku ci jamono di koy fàttaliku ci moment bu ne mais yéen yaa yaa leen tax ma jël vidéo yooyu du ko sama biir page pour rek ngeen noppi au moins que ngeen utiliser seen xel te bañ a bàkkaar encore parce que bàkkaar dafa sew donc na ngeen xalaat ni ne saaga boo leen ma saaga man fàtt si man baaluma leen ndax saaguma leen moo tax duma leen mës a baal loolu moom xam leen ko ku ci nekk ci yéen ñooñu ak lépp loo ma ci tegal lépp loo ma ci wax xamal ne ne man fàtt si amal nga ma àq donc faisez beaucoup attention hein na ngeen def attention bu baax parce que bàkkaar dafa sew te man si Malick li ma dund ci ma àdduna lu ma ko sax samay noon ñu dund ko waaye nag na ngeen xaar ba am fit bi ma am man sañ-sañ bi ma am man ah jël sama kanam gi ne ko ràcc ci ecran bi di wax dëgg ndax yàlla sax ngir yàlla kese ah nit dangay am dëggu boo dëggoo nag ku nekk dina romb bëgg la dëgg mais ku la dëgg dëgg dëgg waaye yàlla mi la tiin du la dëgg mukk utiliser leen tuuti seen xel te ngeen bàyyi jugement jugement juge nit ki baaxul surtout koo xam ne dafa jël ay preuve tegal leen ko xanaa lu nit ki mun a fen a fen a fen a ah? man duma Adji Sarr je dis toujours duma Adji Sarr mi nga xam ne day sànni ay vocal gauche ak droite non moi j'ai mes preuves te samay preuve gis ngeen ko ci sama biir page yéen laa ko fa tegal merci pour les cœurs yéen laa ko fa tegal ndax ngeen am jàmm ndax ngeen xàmmee kan mooy fen ak kan mooy wax dëgg pour ngeen am loo leen ci jàngat yéen ñooñu di wax ne wéruma dama dof dama reew dama ñàkk classe man maa leen ëpp classe téeméeri junni yoon te maa leen gën a yaru ndax man kilifa yi ma toogal yéen toogalugu leen ci kenn ci ñooñu ndax yar moo ma ko may ak sama teggin ak sama intelligence sama détermination la différence entre vous et mois c'est ça man xaw ma nag def ngeen wala defu leen moo tax du ma leen juger te ku ma ci saagi tamit xamal ne ne baalu la waaye duma la tontu ndax tontu lu mooy mel na yéen. tontu la mooy egg petite comme ça comme yéen comme li ma leen ko waxee yéen maa leen mag ci xel mag leen ci baat mag leen ci zaayir moo tax ma am doole boobu ñëw toog fii di wax dëgg di wax dëgg continue di xeex sama xeex la ma waxoon daaw mu ngeen di gis tey jii vingt 27 xale la ñu violé toujours sëriñ si rek parce que dañoo nekk ci dëkk boo xam ne amul loi dëkk boo xam ne ay nit ñu foo ñoo fa nekk dë dëkk boo xam ne boo waxee dëgg ñu ne da ngay fen balaa ñu laa gëm nga dee ba dugg ci paam euh, euh, ni koy waxati ci bàmmeel bi ba ñu fàttali ñuy doog wax ëps ndax su ma ko waxoon daaw dee daaw ren peut-être samay mbokk génn vidéo yi di ngeen ne oh il avait raison yéen noonu ngeen mel moo tax ngeen war a xoolaat seen bopp avant ngeen di ni ñu koy waxate avant ngeen di weddi weddi baaxul ci àdduna nit ki balaa ngaa gëm dara dangay xaar ba am ci ay preuve yu la leer man tegaloo ma benn preuve kon lan laa def ba gëm la. il fallait que je sorte quelque chose ndaxte que nee naa la jusqu'à preuve contraire fii ku fi wax dëgg man mii képp la kese ak yàlla ah oui il faut ma banko nit nag tant que mi ngi fen ngeen continuer di ànd ak moom di fen yéen ak moom yaa leen yem donc société boobu c'est une société malade ndax bu fekkee ne kay fen moom ngeen ànd ak moom di wax ne ok day fen xam nañ ne day fen ñu continuer ànd ak moom di fen kon yéen ak moom yéen ñëpp da di fen ma nag néew ma nag nit ki dangaa war a gëm par force parce que balaa ngaa gëm da ngay gis dégg xam ne lii nga gis ak lii nga dégg ndax dëgg la dëgg neexul sama gars yi mais na nañu waxante dëgg rek entre nous ñaata nit ñoo taxaw fii weddi ma ñaata nit ñoo taxaw fii ah amul loolu ma fi tegalul yéen su ma leen génnul loon vidéo yi yéen est-ce que di ngeen est-ce que yéen di ngeen nelaw kon yéen boo leen gisoon vidéo yi nga xam ne c'était le direct au Sénégal la kon yéen da di dem xaru ji je vous le di dem xaru ji parce que man dof bi ngeen di wax damal faju ji man dof bi ngeen di wax da ngay duul man dof bi ngeen di wax ne amoo classe man dof bi ngeen di wax ne tu perte dangaa perte man dof bi man maa dul tontu parce que su ma leen tontu damay mel ne yéen su ma leen tontoo damay mel ne yéen et je refuse d'être comme vous ah parce que xam lu tax man refuser mel ne comme yéen parce que man am na lu ma jàng ci sama àdduna au moins. ci sama mind bi moo ma koy may mooy ne man damay xalaat damay xalaat te su ma xalaatee lii ma sama xalaat di may balaa maa xalaat sax na li may li may xalaat ndax dëggalam déet ma gis ko nii ndax la may xalaat su ma ko gisee ma xam ne ni ko loolu mais nit ñoo xam ne duñu xalaat la war a xalaat ñu ngi koy utiliser di ubbi seen gémmiñ di wax kooku du nit kooku mala sax moo ko tane nag mala sax yàlla nangu na kàddoom mais am na loo xam ne mala li mu am fii moo ëpp téeméeri junni yoon doomu aadama yi nga xam ne sax dañuy xalaat xaj li mu mën a defal doomu aadama doomu aadama sax mënu koo defal xaj te pourtant mala amul làmmin mala amul làmmiñ ndax bu amul làmmin kon àdduna tukki xaj rek bu la xoolee rek bu la xoolee li mu lay transmettre doomu aadama sax mënu la kaa transmettre pour wan la doole ba mu àndal ci transmission bi muy def yow doomu aadama amoo capacité boobu wala boo ko amee utiliser woo ko parce que tout simplement tu n'utilises pas la tête nee naa la ñun suñu cerveau intelligence bi ñu yàlla may wu ñu sax le zéro zéro zéro zéro zéro moo tax bu ñu doon utiliser loolu nga xool ne ni ñuy avancer. mais ñàkk xalaat boobu moo tax ñàkk utiliser boobu moo tax ñuy utiliser suñuy xol xol bu lëndëmee du gis du dégg te mënul wax lu baax moo tax nag mu am ay doomu aadama yoo xam ne duñu mën a comprendre jëmm ji waaye bu ma ne la massa sax boo ko comprendre sax waaye bu ko jugé ndax doomu aadama bi ngay gis ni moo la gën moo la gën ci